pour tout le waaw baax na je suis bien centré. ah le soleil. waaw nii baax na. Ah, dafa jege. waaw. ah bon. fi leer ni tax bon lu tax ñu confiant. ñu ko teg ci ñaari mbir ba ci ñett sax bu njëkk bi moom moo di gëm nañ ne ko yàlla gëmul nelawul te dara ump ko te yàlla dëgg la àndal saa yu ko neexee nag lay wàcce dogalam ñaareel bi moom di li ñuy wax yëpp mu ngi tegu ci lu ndaw moom moo di ministère de l'intérieur nga xam ne moom mooy mbubb ministère des élections yebal na wala bàyyi na ay service maanaam mu di ay dagam ñu xëy dindi Ousmane ci liste yi te liste yi boo ci nekkul doo mën a sànni sa xob bu ñuy tànn njiit bi te it kenn du la waram kenn su fekkee ne que dañuy tànn jiit mu teg ko toujours ci mbirum aji Sarr léegi nag loolu ñëpp xam nañ ne que tey jii tuuma yooyu teggeekul et que loolu complot buur moom moo comploté te loolu teggeeku na addina bi yëpp tey jii xam nañ ne que dañu doon wut ay pexe pour daan ko pour ko mu bañ a dem mën a sàkku jiit réew mi kon buñ ko tegee ci xam-xam ret dina jàll lu tax parce que ci tuuma yooyu tuuma yooyu jàpp nañ ko ci diggante bi te yoon dafa nekk su dee jàpp nañ la waxul ci yan anam lañ la jàppee mais atte la ci chambre criminelle mooy ñi nga xam ne que dañu nekk euh, maanaam mbirum deret la walla maanaam jalgati yi nga xam ne dafa jéggi dayoo su fekkee kuréel boobu atte la dégg nga te fekkee woo ko suñ la jàppee bés buñ la jàppee dañ la war a indiwaat ñu attewaat la su fekkee ne bañ la jàppee toog nga fukki fan yoo xam ne que yow waxoo ne que kat man lañ ma tegoon daan ma ko weddi naa ko nañ ma attewaat Ousmane bañ ko jàppee ca police bii fii ci biir tribunal la njëkk a wax ne balaa mooy tontu ci dara moom moo di jàpp ngeen ma atte ajisaar bi weddi naa ko nañ ma ci attewaat kon procureur amul sañ-sañ ne que loolu xamu ko yëgu ko te procureur moom moo war a programmer waat audience bi dafa war a déggoog président tribunal bi li tax ma tudd ñaar ñooñu dinaa ci dikk léegi. léegi nag ba mu demee it ma ne ko lii nga bind bu leen neexee duñ ko feeñal fenn kon bindaatal nga joxe ko fii ñu yéegal ko maanaam kaso bi yóbbu ko parce ñii nga xam ne leen jàpp dañuy yoon dafa leen jox àq ak yelleef ci àq ak yelleef boobu soo bindee ñii nga xam ne ñoo lay garder amuñu droit bañ a yóbbu yow sa bataaxal kon bataaxal boobu xamoon nañ ne dina yegg ñu bind ko procureur bind ko ki nga xam ne moom mooy moom mooy jël euh, maanaam mbir mi mu di greffier bi en chef yëgal leen ne que tuuma yiñ ma teg. ba daan ma ci weddi naa ko nañu ma attewaat ba pare jël benn jox avocat ne avocat bi yow it nga yóbbul ma bii procureur yóbbul ma bii greffier bi yóbbul ma bii président tribunal bi yóbbul ma bii kii nga xam ne moo ma atte woon yóbbul ma bii procureur général yóbbul ma bii ministre bi ñoom ñëpp ñu xam ne ka lañ ma wax nekk ci fukki fan suñ ma jàppee war su ma fe su fekkee ne que ma ne que nañ ma attewaat atte bi jeex kon ñoo ñëpp kenn tey jii mënul taxaw ne feew ne yëgu ko li ci nekk nag moom moo di que ñoom ñoo ko war a mën a attewaat léegi nag au lieu ñu attewaat ko ñu ne ŋoyeret ne ko déedéet lañ ko ne loolu kooku dañ ko dindi ci liste kon bu fekkee ne que kii atte day atte yoon rek bu gis loolu dina xam ne que atte boobu yoon moo ko saayal ndax yoon dafa ne boo ko defee rek saay na dañ la war a attewaat suñ la attewul it saay na ñetteel bi fiñ ko teg moom moo di que ci anam yooyu ma wax Sénégal ñi fi nekk am na attekat yoo xam ne dégg nga te it mun naa njortu ne ñoo fi ëpp kenn mënu leen ger am na ñu fit ragal nañu yàlla am nañu xam-xam dañuy ñaan yàlla dossier bi tegu ci seen loxo bu tegoo ci seen loxo yit bu soobee yàlla mbir mi dinañ ko jaarale yoon loolu mooy ñett mbir yi nga xam ne da ma laaj fan lañ ko teg léegi nag ñun sabab bi la ñuy def sabab bi nag ñii ñëpp dañ koo seq mooy lii ma wax lépp léegi nag ba tey ji gëm nañ ne que Ousmane incha allah rabbi dina bokk ci élection yi te gëm nañ ne it nii nga xam ne ndaw yi ak jigéen ñi ñoom ñoo ko topp te sunu borom bi nekk boo may seet seet ma ci jigéen ñi ci ci ci ci ndaw yi wala nga seet ma ci néew yi doole néew yi doole yëpp topp ci moom jàpp naa ne que bu demee amul koo xam ne mun na jàmbaarloog yow te du la bor ci dóor li ci suuf day falu Bon, pour ce qui est de la décision prise, après avoir écouté les partis, 8 heures d'horloge, plus un bonus de 15 minutes chacun, le juge a décidé de se retirer et d'aller dans la solitude et avec comme seul guide sa conscience et son bréviaire, c'est la règle de droit pour rendre sa décision le 14 décembre, donc dans deux jours. Donc voilà ce qui a été décidé et ce qui a été jugé à Ziguinchor, qui est parti au niveau de la Cour suprême et qui est revenu devant le juge de Dakar, n'est-ce pas C'est de cela qu'il était question de redébattre. Maintenant, le reste, c'est des débats techniques Euh, si j'en parle, cela ne servirait à rien à ceux qui nous écoutent. Donc le à 9h, rendez-vous pour avoir la décision rendue. Et cette décision est susceptible d'être frappée d'un pourvoi encore devant la Cour suprême qui, euh, qui va encore se pencher sur la question. Et si maintenant, comment dirais-je, le juge rend la même décision, les chambres réunies vont en fait trancher. La question va être réglée définitivement. Maître Larifou. C'est un, un, avocat qui est là, qui se bat pour les droits de l'homme, n'est-ce pas, qui nous accompagne et qui est aussi candidat dans son pays. Il est allé, si je ne me trompe, deux fois au second tour des élections présidentielles. Et évidemment, comme ici, tout le temps, il fait la prison pour les mêmes motifs, pour l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Oui.